Ndiaye asalaamaaleykum maa ngi tudd Pape Sanor Ndiaye responsable des scènes appareils dañ Ndiène Sirah tey dañ fee ñëwoon rek pour leeral ñëw ñu fi pour xuloo ñëw ñu fi pour ñoo ñëw fi pour leneen dañ fee ñëw pour leeral li ñu bëgg a xamal monsieur Demba Diouf mooy mu bàyyi li muy def di jël ay seen di leen yebal ñoo xam ne bi xamu leen ñu ñëw di wax Maysa daru may sa Diouf lu lu noonu naka su du noonu alors que loolu du liggéey bi Demba kenn xamu ko li mu war a def mooy mu ñëw Thiès jéem mu muyee le maillot mënul fee sax benn car rapide alors que ñun fi may wax yow nii ñun ay kilifa lañ ci parti bi ay responsable ci parti bi fi may wax yow nii jën sarax lañ jëm CM bi ñooy def seen gouvernement scolaire seen gouvernement scolaire CM bi ñoom ñooy def seen semaine culturelle ñu invité ñu ñu war caa dem nii mais alors que mi ngi yebal ay gars yoo xam ne kenn xamu leen ñun du ñu tux ko di yamba bu ñu naan kër sàngara ay responsable lañ bi. donc mu leen di yebal nu ñëw di wax ci turu démb ci Maysa Diouf loo xam ne nii naka su dul noonu alors que Maysa mi ngi liggéey liggéey bu wér ci parti bi à Ndiéyène Sarax malgré que am na ay adversaire de gros calibre yu fa nekk yoo xam ne kenn doon laajte ci département bi donc ñu def parce que presque 30 ans ci politique Maysa mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi liggéey ak ñoom mi ngi jàkkaarloo ñoom chaque élection mi ngi yokk kon Demba li mu war a def mooy mu jéem a xool résultat yi am nu ko nu ko dëgëree nu ko solidifier moo gënal muy wër di jabal ay boo yoo xamante nii ñu ñëw di wax kenn xamu leen di wax ci message bi naka su du noonu alors que récemment nag jàng monsieur le maire suñu maire ñu Fallou Fall wax ne ne ñëw na APR ci jàngam yi passé ñun nag kontaan nañ ci loolu ñi ngi xaar mu ñëw ñu liggéey ak moom mais dans la main parce que dañoo jàpp ne parti bi ngeen sarax lépp lu ci def rek ñun nga ko defal comme pare na pour ñëw ñun pare na pour ànd ak moom euh, liggéey ndax maire suñu mag la suñu kilifa la ñoo dëkk ñoo bokk avant politique kon bu paree pour ñëw APR rek pare na pour jàppale ko Augustin Tine ministre des forces armées di ko wax ne ko ñun amuñu moom problème amuñoo Massamba problème amuñoo ma Demba problème ñun ay militants discipliné leen lépp lu parti bi mas a wax respecté nañ ko lépp lu parti bi jox comme digal def nañ ko malgré que référendum yi passé am na ñoo xam ne nii parti bi jox leen ay moyens mais dañoo dem campagne pour le pour le non alors que ñun lu ñuy demee suñu moyen de bord la ñuy demee te lépp lu parti bi mas a wax def nañ ko Demba Diouf nag li nga xam mooy leen moom amul ñett nit ay moye parti bi lay demee ci booba léegi di ñël jël ministre bi di ko tëggale ak nit ñi ministre bi na xool baax a baax a baax a baax ñu ko ñu ko wër na xool baax baax ñu ko encadré mën naa ne il est mal entouré donc il fallait que mu jëlee ñooñu ci wetam pour que mu mën a am mu mën a am département bi nekk ci loxoom ba ci wax ji ni wax ci département bi mën fa jóge parce que dëgg am na deux camps am na benn collectif des maires bu ñu fi wax ak coordination départementale bi mooy sax dafa wax pour ñu régler loolu waxul pour yàq day wax pour boole dem ba ñu xaar moom muy muy fédéré nekk un fédérateur mais mu nekk muy nekk un diviseur ñun dañoo bëgg mu boole moo gën muy jël di yebal ay gars yoo xam ne kenn xamu leen coolu am ci département bi ñëpp xam nañ ko li ñu laaj ni wax ministre mooy lan na dajale ñëpp waxtaan ak ñoom collectif des maires beeg coordination départementale beeg ñu teg lépp ba élection yi ñu jëm législative 2017 yàlla mën cee mën ci ndam lu kawe suñu jot loolu moo doon li nga xam ni doon naa ko eggale doon ko jàllale maa ngi sant maa ngi gërëm jërëjëf. bon man la El chargé de la communication du mais de départemental de Thiès aussi responsable APR à Ndiène Sarax bon dañu ñëwoon fii tey di am loo xamante ni jëm na ci département bi muy kàddu yoo xamante ni dañ kaa jël yëkkati ko teg ko ci deru Meissa Diouf responsable APR à Ndiène Sarax mais aussi coordonnateur COSER ci département bi mu nekk kàddu yoo xamante ni aussi rafetluñu ko. parce que ku ne xam na ne Maïssa Diouf liggéey bu am solo bi muy liggéey ci département wu Thiès massification parti bi kenn nattablewul ne moo koy def ci ci département bi te département Thiès ñaari kilifa la am muy le responsable Augustin Tine ak le responsable COSER monsieur sa Diouf donc il faut que ñu arrêté monsieur Demba Diouf il faut que tu arrêtes li ngay def amul solo li nga war a def mooy ñëw à la base nga massifier parti bi fexe ñi nga xamante ni. APR la ñuy militer ci commune wu Thiès ñu xam la je pense que ñi nekk ci commune wu Thiès Ouest sax xamuñu kan mooy dem Demba Diouf kon donc kooku bu jógee di wax loo xamante ni du intérêt wu parti bi il faut ñu wax ak moom ne ko mu arrêté il est temps que qu'il arrête Maysa mu ngi liggéeyal parti bi ñun ay élèves lañ ak ay étudiants nekk ci département bi récemment ñu taxawal génn kuréel tudde ko maire mouvement des élèves et étudiants républicaine ci dëgëraayul Maysa Diouf ndax moo ñu dooleel moo ñu jàppale ba loolu lépp am te bi mu koy def aussi daf ko def ak ay propre moyen mënoon na ko ci bañ a foog mais dafa xam ne président Macky Sall moo xam moo ko ñor dafa xam ne aussi liggéeyal Macky Sall moo ko ñor mu war ci ànd ak ay ndaw yoo xamante ni yu responsable lañ ay ndaw yoo xamante ni aussi ay référence lañ ci jàng bi ñuy jàng loolu moo waral mu ànd ci ak ñun bañ taxawal kuréel googu muy dimbali aussi. élèves yi nga xamante ni ñu ngi ci département bi fépp foo xamante ni élève mu ngi fa di def ay ouverture officielle foyer c'est-à-dire foyer ci gouvernement scolaire yi mu ngi fay dem di leen jàppale ci ay moyens de bord am yi aussi yi dëkk ci département bi mën naa ne la euh, quasi totalité des appartements ci département bi dem nañ visiter ko waxtaan ak ñoom ñu diis ñu seeni saafara may sa def ci lëm ca mën te yaakaar naa loolu nekkul lu dul liggéeyal parti bi te bi muy def loolu daf koy def pour dooleel APR donc ñooñu ay référence lañ te dama leen di wax ne le tout à l'heure j'ai suivi débat sur euh, RTS ñoo xamante ni bokkuñu sax ak may sa parti ku mel ni Jatara mais ay qualité rek la gis ci Maïssa il a dit publiquement ne bien vrai que bokkuñu parti mais Maïssa c'est quelqu'un koo xamante ni dama ko naw dama ko fonk parce que ay idée yi muy développé intérêt wu département wu Thiès la mu toogoon fa ak ku mel ni euh, responsable PIT Amath Camara ak responsable PDS Pam Moussa Diop mu nekk ñoo xamante ni ay référence lañ ci politique Thiès ndax ku ne xam Pam xam ne ku yàgg politique la ci Thiès daan ci ànd ak euh, le responsable PDS. Euh, Boubacar Sall donc loolu ñooñu bu ñu demee ba jël yenn position yi di wax ci Maysa wax ju rafet jooju donc jàpp naa ne ku nekk ci parti APR warul wax lu dul loolu mais du wax la contraire kon ñooñu nañu ressaisir xalaataat la ñuy def xalaat ne intérêt yu parti bi nekkul lu dul rafetal nekkul lu dul wax lu rafet ci ñi nga xamante ni dañuy liggéeyal parti bi Maysa guddi ak bëccëg suba ak ngoon ci loolu lay dox ci loo xamante ni. day jëmale APR kanam loo xamante ni day massifier parti bi loo xamante ni day dox ci président Macky Sall am deuxième mandat donc il faut que ñu arrêter dénigrement bi loolu amul amul njariñ moom moo leen di wax aussi ci ci ci situation wu Diène Sarax parce que récemment ñu ngi commencé ne le fait que ñuy génn di def yenn point de presse yi c'est pour barrer la route à Serigne Fallou Fall ma leen di xamal ne loolu c'est pas vrai Fallou avant politique dafa am lu ñu lié man mii di wax yéen Fallou sama beau frère la parce que sama mag ju ma bokkal ndey ak baay mooy nekk këram donc samay jarbaar ñoo nekk biir këram donc kooku bu dul amul lenn loo xamante ni mën nañu ñaawoo ci suñu diggante ndax bu lu jiitu politique bi ay mbokk lañ donc récemment annoncé na ne day ñëw APR bon ñu ngi koy xaar aussi di ko accueillir ak bras ouvert di dalal xelam ne ko bu ñëwee tamit dinañ ànd ak moom liggéey ko liggéey ak moom pour intérêt wu commune bi mais aussi pour intérêt de la jeunesse de Thiès euh, ñi nga xamante ni ils ont de mauvaise foi nekk di yàq nañ bàyyi li ñuy def APR parti jeune la APR président Macky bi ko jiite dafa am lu tax mu jiite ko lan mooy solidarité partage ay ay qualité donc Macky Sall bu génnee PDS ñu sonal ko fa mu génn créer parti pour l'intérêt wu Sénégal ànd ci ak ay jeunes yu dynamique yoo xamante ni dañu bëgg Sénégal président Macky di teg ay actes yu fort pour l'émergence du pays am responsable yoo xamante ni dañu jug pour vulgariser loolu au niveau du département ku ci mel ni may sa Diouf donc kooku képp koo xamante ni APR nga bokk danga nga war a rafetlu loolu danga nga war a jóg jàppale ko ci liggéey boobu je pense que il faut que ñu bàyyi li ñuy def te ñëw bokk ci liggéey bi ñun amuñu problème ak kenn ce qu'on mooy la massification du parti le développement de Thiès parce que mooy suñu fierté Thiès développé le Sénégal développé